ay ay réew mi bu dee bëgguñu ma dof lu mu rent waxati buñ ma ko gëm man naa xëy si ba ñu envoyé ma plus de cinquante cinq mille euh, informations sama bopp bi attanul information yooyu yëpp yéen tamit nag s'il vous plaît xëy naa faja tey ñu daan affaire des amnisties nag isa les amnisties yooyu ñu fàttale xewoon ci ginnaaw lépp loolu ndax mën naa ne eh, ndax mën naa ne yàqu lépp li faatu lépp ay yàlla réew mii fi mu toll la war mu waroon a toll fi mu toll li ñu arrière ni ñu taxawee ni ñu delloo ginnaaw ma xëy di ne déet añ ba pare lonk lonk sama tànk di naan ataaya ñu ne ma eh, libéré na détenu ya nekk ca fële ca buur ma ne alhamdulilah nekk déetewaay ñu ne dañoo woote bëgg xaw ma lan Ousmane Sonko vendredi passé gisante naa ak Ousmane Macky Macky Macky Ndiaye mu tudd sax gone gi yor réew mi Macky Sall kenn xamul lii rek dégg naa ca côté bële Khalifa Sall ak Baart ña ngay kaañoo ña nga naan lañ defi woon ñëpp koy def lu waral amnistie gi lu waral ki di xaw ma lan soit di dialogue am na dialogue am na kon walla dialogue am na xëy léegi toog ñu ne suñu imaamu koñ bii ni takk na quatrième fan te seen kër chaque jour ñu àtte xuloo xeex kon ñun dootu ñu ne nelaw ñett doo nga la xuloo xeex du dakk mu takk quatrième fan ay wàcc léegi bi may wàcc yoon bi laa gis benn jël xaw ma lan jël message dañuy takk jëkkër ma xool nekk sama ex la tey jii li ma li ma li ma enregistré ci information bëri na attanu ma ko wala est-ce que du ma démissionné <laughs> ci réew mi wala s'il vous plaît du du ngeen ma bàyyi ma démissionné wala ma jël conseil li ma nit ñuy envoyé information yi métti na trop te bëri walaay assume waaye nag réew mi daa mel ne mi ngi defaru de problème boo gis am na solution daa mel ne ci ñoo toll ci phase solution bi xeex nañ ma sonn jàmmaarloo nañ ba sonn nit ñi faatu na nit ñi yàqu la nañ réew mi taxaw na économie bi daa taxaw yëgu leen ko woon daa taxaw de bu dee am nañ solution dañ koy wut dañ wut solution yi régler problème bi mais nag pas question ñuy dàq élection yi moom amul kenn koy wootee di wax waxu dàq élection yi maanaam touché suñu constitution ma ci ànd ak yow amul amul kenn kenn kuy woote rek luy wane luy wax ne dañuy toucher constitution bi ñuy jàll ak yow nag mën naa am comme perdre nañ une semaine ci euh, xaw ma dix jours ci lii di campagne électorale ki nañ ci dolli dix jours ci vingt cinq bi ñu def foofu élection yi pas question ñuy dem ba ay quinze décembre rek vingt huit euh, euh, trente deux avril amul defuñu ko dañuy élection dégg ngeen day waaw leen góor alaay <laughs> agi Macky Sall ak nguuram gi yàlla bu mu fi amati